Assane Ba ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. ñoo ngi lay euh, fay di am mbégte di waxtaan ak yéen rawatina réew mi FM nga xam ne rajo bi ñëpp koy déglu wax dëgg yàlla <laughs> euh, maa ngi kontaan ci invitation bi. nga bokk ci comité directeur bu parti démocratique sénégalais doon tamit secrétaire national euh, chargé de la mobilisation et de la propagande euh, bu parti démocratique sénégalais tey ñu wax ci li nga xam ne mooy découpage administratif bi ñu nemmeeku gis nañu ca Kër Massar ne jamono ji département la nan nga jàppee tey enjeu yi. waaw enjeu bi li ci gën a jiitu rek mooy affaire politique lañ fa indi. ndax bu du découpage Kër Massar boobu. nekk na loo xamante ni tawatu citoyen yi dëkk foofu la. Mhm. wax dëgg yàlla loolu loolu d'accord nañ si. Mhm. waaye dafa am lu jiitu décopage dañu waroon def ay analyse mhm. seet ci wàllu koom-koom lan lañu ñu mën a génne ci wàllu koom ci département bu bees boobu nga xam ne mooy Kër Massar. ndax am na njeexital ci ay infrastructure yu ñu fa war a def ñu commencé ko fa def lu mel ni ay lycée lu mel ni ay CM lu mel ni ay dispensaire ay ay lopitaan ak yooyu lu mel ni ay infrastructure routière lu mel ni ay bërëb yoo xamante ni ay jaayukaay la ay marché ñoom seen yooyu mm-hmm. donc yooyu def war a am euh, ci li ñu tuddee un territoire départemental mm-hmm. donc yooyu la ñu jëkk xool vérifier ko analyser ko donc ñu soogay euh, jël décret ériger ko en département. Mhm. mais gis nañu sax am na ay communes yoo xamante ni jëlee nañ leen Pikine taf leen ci. département bu bees bi te ànduñu si mhm. si mhm. ñoo ngi koy xultu ñoo ngi yuuxu di takk seen brassard rouge yi wane ni ñoom ànduñu si donc loolu dafay wane ne rek ci ci yàkkamti ak ci parparloo ak ci élection yi ñu jëm lu leen lu mu leen jaral pour gagné daal dinañ ko def mais soxlaa lu ñu xalaatu kenn. te mm-hmm. itam mbirum département wala commune wala sax booy ci ni ñu tuddee aménagement du territoire. Mhm. boo koy sakku di ko def dafa am ay acteurs yooyu waxtaanal. d'abord am ay acteurs économiques d'abord. Mhm. wax naa ko sànq mais également war waxtaan les acteurs politiques. parce que comme ni ma ko waxee sànq. Euh, ñi nekk tey ci nguur gi yor pouvoir bi. ëllëg ñoom ñooy dem ci opposition bi. Mhm. ñi nekk tey opposition ñoom ñooy jógee fii ci opposition dem pouvoir. kon vase communicant la war doon ci kaw fi nga koy fekk fi nga koy bàyyi ku nekk ci suite boo yéegee fi nga koy fekk fi nga koy bàyyi kon war nañ mën a waxtaane réew mi mhm. seet li ci gën a rafet li ci gën a jekk ay la yoon ñu waxtaane ko bu ñu déggoo ci ñu doxale noonu nga xam du am benn problème mais bu dee ku ñëw nga tas li fi ne nga def leneen nga ni loolu moo lay indil njëriñ ci wàllu jiite ko mhm. ci wàllu fexe ba sa ñi nga faral lool politiquement ñu jiite ko loolu taxul découpage am solo loolu taxul ñu ériger ville wala wala département wala commune en département amul amul sens amul jeexital. bu weesoo enjeu économique euh, enjeu politique yi nga xam ne soulevé nga ko euh, gis nañ ne tamit du ñàkk ay limites territoriales ndax tey bu ñu jëlee dakaar département euh, maanaam Dakar département arrondissement yi département yi dina doon dix neuf li jëm ci communes yi quatre arrondissement li jëm ci Pikine moom dina ñàkk li nga xam ne moom mooy ñaay bi tey yi nga xam ne moo doon jëm ci koom-koom yu bëri ci ñoom ñu ci doon profité ndax foogoo ne dina gën a fës. waaw justement xam nga loolu moom li mu doon expliqué léegi parce que dañu jël euh, yëmbal nord yëmbal sud jël Malika ak Kër Massar. Mm-hmm. dégg nga génn ko ci Pikine def ko ci département bu bees bi. Mm-hmm. créé ñaari yeneen ñaari commune jaxaay jële ko Tëngéej indi également. Euh, ñu créé beneen commune euh, Kër Massar Kër Massar Sud. Mm-hmm. alors mu nekk juróom benn commune yoo xamante ni tey ñoom ñoo ngànk le département. Euh, bi nga xamante ni moom lañ tudd département de Kër Massar. Mm-hmm. loolu effectivement non seulement perte la ci wàllu département de Pikine bi nga xamante ni seize communes la amoon tey jii douze communes la am ah parce que jël nañ fa quatre communes alors li ci des mooy ñooñu ko taf tafee ci Kër Massar tam mm-hmm. amul benn accompagnement économique donc boo koy seet benn cadre la bu vide rek leket bu amul dara la wax dëgg fa yàlla leen liggéey rek boolante ko euh, def ko daal un gros village en vérité mais vraiment loolu nekkul daal liggéey bu ma rafetlu man personnellement. Mhm. ñu wax ci euh, tournée économique bi nga xam ne njiitu réew mi moom la amaloon bu yàggul tey ñu gis euh, ñaka toppoon ci yooyu les tournées fi mu jaar euh, fu bëri gis nañu nit ñu bëri tey yéen ñi nekk ci opposition bi nan ngeen décrypter message boobu. bon bu dee dañu waxante dëgg rek Elisabeth. Mhm. man dama jàpp ni tournée économique amul foofu. tournée poli tournée politicienne moo fa amoon. Macky Sall dafa jël boppam def nii moom mooy président comité électoral bu benn bokk yaakaar. te nag du sañ-sañam. ndax élection locale yi élection territoriale yi war ci dugg waru ci fés waru ci wax. ah waaye war naa gunge tamit ay ndaw. waaw mën na leen gunge waaye waru ko fësale nii mu leen di fësale ndax bu fekkente dafa tournée économique waaye man mënoon naa nangu ni bu doone ay petit et moyenne industrie wala petit et moyenne entreprise yoo xamante ni dañ leen di tabax di leen inauguré nga xam ci production locale bi mel ni ay mango ay darkase wala ay yeneen meññeent yu mel ni ñu nekk Casamance moom lañ doon produire. Mm. nga xam dafay yokk euh, plus value. Mm. koom-koomu réew mi yokk indi résorber chômage bi kooku man may jëkk tàccu man. mais li ma gis du loolu ay lopitaan nee na lay inauguré lopitaan yoo xamante ni sax ñu bëri nee nañu pareegul muy benn ñaareel ba ci diggu réunion yi mu naan leen eh, fii day mbokk nu rubuk fii daal gañe nañu fi yéen nag du ma nangu ngeen dem ci beneen liste kon kay xam na wax dëgg fa yàlla soubassement bi euh, tournée bi soubassement politicien la loolu moo tax ma ñaawlu li Macky Sall parce que la nga xamante ni war na ko def malheureusement def koy bàyyi à côté def leen lu uteg loolu. Mhm. loolu moo tax franchement amul kenn ko xamante ni euh, économiste yaa ngi may déglu. Mhm. amul kenn koo xam ne mën nga wax ne cette tournée a été une tournée économique ça a été une tournée véritablement parce que il a perdu du terrain. Mhm. les événements récents là yi fi jógee en mars et février. Euh, xaw na bale gouvernement bi. Mhm. Euh, tout le monde en congé. Euh, donc yooyu lay jéem a rattrapé di jéem a jauger popularité am di jéem a seet moom fan lay jaar te xalaat naa ne nag. Mhm. bu fekkente ni xelam màcc na de bay jëm ci troisième candidature foofu moom bu yeboo mu xam ne moom c'est terminé. Mhm. parce que loolu na gëm yàlla te xam ne moom mënatul nekk candidat c'est terminé la constitution est très claire. alors côté boobu bu dee loolu lay jéem làmb di di di xool nit ñi fu ñu toll jàpp naa rek mu ngi ci njuumte gu rëy rëy la nekk. donte gis nga ne euh, yow dafa doon làmb euh, mais teewul gis ngeen ay nit yu ko topp. waaw mais nit ñi xam nga nit ñi dañu sonn. Euh, nit ñi dañu sonn ndax am na ñoo xamante ni je sais avec regret que je hmm. bu ñu amee añ wax dëgg yàlla reer bi da leen di jafe. ndekki moom waxee su ko. Hmm. alors li suñ mag ñu jëkk ñu doon waxee gober gober jaas yi moo am ci réew mi qu'on le veuille ou non donc ñooñu lee boo leen joxe mille francs jox li deux mille francs te ñu doon toog une semaine wala dix jours sax duñ ko am mais loo soxla ñu defal la parce que dañu sonn dañu xonet li wolof naan naan xonet dañu dem ba tiit donc boo leen gaaree ay oto jox leen ay t-shirt ñëw leen rek dañuy tartu président nax leen noonu ñoo indi mobilisation ñoom noonu lañ koy gisee. waaw lan moo tax nga ne dañ leen a jox xaalis jox leen a. mais dañ ci am ay firnde ju leer ndax sur l' ensemble des collectivités territoriales yi am ci réew mi le parti démocratique sénégalais est très implanté te suñu ay responsables ils sont très vigilants ñoom ak militants ak responsables Euh, pouvoir bi ñoo dëkk ci gox-goxaan yi donc ñoom ñooy gis carrément la nga xamante ni ñoom leen jox te ñoom ñoo ñu wax rapport yooyu. Hmm. te itam am na si ñoo xamante ni sax ci suñu militant opposition bi dañ leen di jéem ambaale di leen neexal naa la ñi ñu leen non non non ñun fii lañ bokk ñun vraiment mënuñu ànd ak seen caaxaan yooyu. loolu moo tax firnde bi firnde yu leer la ñu am. Uh-huh. ci ñooñu nga gis c'était des personnes payées et transportées donc gëm ñu sax Macky Sall bay gëm gouvernement bay di jàppale. kon daal mobilisation bi tiitalu leen benn yoon yéen waa non non non non non xam nga ñun parti démocratique Sénégal nag kenn duñ jàngal mobilisation man mii di waxe yow man maa en charge la mobilisation de mon parti. Mhm. donc xam naa bu baax a baax ce que la mobilisation. kon du ñu la du ñu la ñuy jàngal mobilisation mais ñun à la différence de ñoom ñun mobilisation bi noonu def c'est effectivement nos propres militants mosuñu dem ci militants yeneen parti di leen jéem soudoyer pour ñoo jàppale ñu. nga xam ne foofu nga xam ne ñi def nañ tas de Mm-hmm. mais mais mais boo waxee loolu tey ñu xool ko ci maître Abdoulaye Wade donc président Abdoulaye Wade tey bu génnaan euh, day drainer du monde mais gis nañu euh, fi mu toll nii euh, certainement euh, âge bi du ko may mu wàcc ànd ak militant yi ak yéen ñii di naa yi ci terrain bi donc il faut se dire que boo mayul yéen rek yéenay nekk est-ce que am ngeen yaakaar ne euh, mbooloo moomu Wade doon drainer PDS dina ko drainer ba tey. xam nga président Abdoulaye Wade dafa am lu ko yàlla kese la président Abdoulaye mooy président boo xamante ni bi dafa yor nguur gi ba jeexal nguuram ci kattan suñu borom mais mu nekk na ci xolu doomu aadama yi ba ñi nga xamante ni tey ñu nekk au pouvoir nanguwuñ sax ku tudd Abdoulaye boo tudd Abdoulaye ñu ne na Abdoulaye c'est un patrimoine national kooku moom vraiment def li mu war a def dem na repose te gis nga nit ñaa ngi rëccu nit ñaa ngi rëccu yu bëri y a plusieurs comités rëccu yoo xamante ni nañ ko boo demee Touba nga dem bitim réew un peu partout des comités rëccu lañ fa ñun rëccu nañ Abdoulaye Wade ñun dañoo juumoon maam buy baal ñu loolu yéen koy dégg ñu koy kañ di ko wax donc loolu moo tax ñun waa parti démocratique sénégalais ñu ngi koy ñaanal fan yu gudd bu baax a baax ma yàgg nekk suñu kanam duñu tette duñu wan yoon yi parce que moom yàlla def ko may lu jafe wax dëgg yàlla moo tax suñu xel gën a dal parce que am kilifa gu toll noonu mën a gérer partem ak âge yi mu am mën a wane yoon ba ci opposition bi kenn ku ne dañ na Ablaye la ñu xaar moom kat nañu jox orientation loolu déjà sac ci mag mu mel ni Ablaye Wade sac la ci parti démocratique sénégalais en tout cas responsable ak militant PDS mhm. donc je pense que foofu la ñu ak ñi nekk au pouvoir te itam ñoom sax si dañuy roy si ñi nga xamante ni noonu la la preuve gis ñun pare nañu ñu commission nationale en charge de la préparation des élections war a quatre collectivités territoriales waxtaan ak réew mi fu fi coono yi nekk waxtaan ak réew mi coono yi nga xamante ne Macky indi na ko Sénégalais yi mbirum justice bi nga xam ne def ko ngalap def ko sous ordre xale yi chômage bi metti nga gis ne collectivité territoriale amul dara loo xamante ni defal nañ ko ci ci gox goxaan yi nit ñi gën a sonn tey jigéen ñi laate kaas chômage bi gën a chronique xale yi ñuy jàng mën ñu sax fay ko bourse dañuy bare teel bi pour pour ñu man leen a fay coono yooyu le Sénégal yi bëggatul gis yooyu lañ bëgg dindi. kon bu ma la xaarandi ci tournée gannaaw bañ taxawal commission forcément forcément booy def campagne électorale di nga def tournée. mais avant campagne xam nga duggaguñu. bon ubbeeguñu campagne. Euh, loolu loolu ñun loolu ñun def nañ ba pare sax bu yàggu rek le frère secrétaire national Saliou Dieng chargé de structure qu'il def l'ensemble euh, des collectivités territoriales avec son équipe ñun def nañ tournée ba pare ñun def nañ tournée ba pare on a fait l'ensemble des des territoriales nous sommes le seul parti à l'avoir fait donc c'est pour dire simplement que Parti démocratique sénégalais nekkul parti tomo nekkul parti mm. euh, sommes très grand parti organisé xam nañu lu ñuy def daal xam di waajalee local justement comme nee nga def ngeen tournée ba pare euh, ndax yéen a ci biir. xam nga euh, parti démocratique sénégalais moom mos nekk le géniteur de de coalition au Sénégal def nañu vingt six ans ci euh, opposition bi yéen ngi fàttaliku en en quatre vingt huit ba en mille la coalition FAL euh, la coalition deux mille donc kooku c' était sous l' initiative du président Wade secrétaire général national du parti. Mm-hmm. avec d' autres partis yoo te ñu ne ñoo ma nekk ndawoon ku mel ni Ablaye. Euh, ci bi ku mel ni ndem si yàlla bi Amath Dansokho ak ñooñu euh, ak ak ak ñoom Landing Savané mhm. ñooñu dañu àndoon def une large coalition euh, looloo taxoon ñu battre Abdou Diouf n'est-ce pas en en deux mille et c'est important mhm. donc coalition locale yi également wax dëgg fa yàlla bu ñu wante dëgg doole bu ñu mën am it bu ñu si amee leneen lu ci dolleeku ci gay gën a baax day gën a yomb loolu moo tax parti démocratique sénégalais bokk ci front de résistance nationale ak composante yi nga xam te ñoo bokk foofu muy mouvement de citoyen muy parti politique bi muy association citoyenne ñun ñëpp ñu ñu ñu fi mu nekk nii di waxtaan ak yeneen composante de l'opposition ñoo ñëpp dañu bëgg di waxtaan pour fexe mettre en place une large coalition boo xamante ni incha allah dafay nekk un rouleau ne n'est-ce pas contre le le, la la coalition gouvernementale. loolu ñoo ngi koy tabax. Mm-hmm. te incha allah balay fan yii incha allah di ngeen dégg ni coalition bi taxaw na dinañu annoncer les couleur annoncer également le nom et tout. tey Assane Ba euh, bu weesoo locales yi législatives yi euh, lii di présidentielle euh, moo ci topp bu ñu nee parti démocratique sénégalais dañ naan ana seen candidat fu mu toll. ah très bien le candidat Karim Meïssa Wade sénégalais yëpp dañ ko nam sax malgré message yi bi nga xamante ni yónnee na ko burki démb ci korité bi ñu koy rafetlu trop di ci kontaan ñoo ngi gisee ak moom ñoo ngi waxtaan ak moom bu baax. Euh, li am solo mooy ñibbisi Karim Meïssa Wade ci parti démocratique sénégalais rek lu tënku le parti est en de travailler ci loolu. Hmm. ñoo ngi waxtaan ci suñu biir ñu ngi xool ban période mooy baax pour mu ñëw Sénégal yi parce que na Karim fii dëkk na fii la papam dëkk fii la yaayam dëkk fii la euh, mbokkam dëkk. Karim il est sénégalais comme yow comme man konte nag kenn mënu ko tere ñibbi si fii à la kuli aleen donc euh, même bu fekkee ne Macky Sall veut le contraire malheureusement euh, bëgg-bëggam du sotti donc loolu question de temps la rek question d'opportunité la. Ah. loolu parti bi mu ngi ci liggéey bu baax a baax a baax a baax période bi nga xamante ni ci la ñu moom la ñu pour mu ñëw si bu ñu si tollaa bu soobee suñu borom dinañ ko siiwal wax ko yéen waa presse bi ngeen ñëw gunge ñu ñu dem aéroport international Blaise Diagne eh, jël tertu ko ànd ak moom ba ci këram ngeen xam ni Karim Wade ñibbisi na ak jàmm kooku amul benn problème. kooku moom bu ñu sax ci. ñoo ngi leen di xaar bon. bu baax soobee yàlla. Assane Ba membre du comité directeur bu parti démocratique sénégalais secrétaire national chargé de la mobilisation et de la propagande du PDS ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay delloo jaajëfal di leen gërëm bu baax yéen waa Rewmi FM wax dëgg yàlla Elisabeth maa ngi lay gërëm ci invitation bi maa ngi leen di nuyu bu baax di nuy seen auditeurs yëpp jërëjëf. merci beaucoup.